Assalamualaikum mbokki Mboro assalamualaikum mbokki senegal assalamualaikum mbokki aduna ñu am mbekté ak contenté bu baax ñew fi nga xamné ci mom moy mooy la Laser ñew fekk fi ben champion bo xamné ci muy champion bu mag wala dal ak mom si nga xam ci mom mo jëm ci walu émission ci lamb euh mu euh, programme bu mag bo xamné mo traverser ci semaine bi ñu génn euh, muy côté le 13 février ak le 20 février inshallah muy open press bi ak euh, combat bi loolu lépp ñu résumé ko si li nga xam si mooy question ak réponse yu nga xam si waa adduna ñu ngi koy xaar ci ki nga xam si moom nga xam si mooy dictionnaire nekk champion boo xam ne kenn dutu ko laam-laame nekk champion boo xam ne tamit fii ci adduna wala fii ci nga xam si moom mooy diwaanu Mboro wala diwaanu Sénégal képp ko ne dictionnaire xam na ko avant ñuy def lenn nag dañuy jox li nga xam si moom mooy kaddu gi moom it mu nuyoo wante ginnaaw nuyoo gi tamit ma ànd seeg sama xam si moom mooy sama caméraman yi nga xam si ñoom tamit bu dul woon ñoom dara du sotti mooy ki nga xam si mooy Saalihu ak ki nga xam si ma jaxate ak ki nga xam si moom mooy Habib ñom ñu nek jëne kamera yo xam si képp mu xam si da nga bëgg image bu lèr nañ ak nga xam si mom moy son bu lèr nañ bu accès ci ñom nga xam né seen xam-xam match na trop trop trop bala lool nak après dama jox ki nga xam si mom moy champion bi ki nga xam ci mom mo waral euh, mbabor mi moy dictionnaire dictionnaire ma ngi lay nuyu. oui Mansour ñoy lay fay onju bila bismillah inna wali jere jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul oui ma lay fay dila delo war ma di la siyaare di siyaar saaliw ak caméraman yi ci topp yëpp di siyaar site bi tamit wallu wàllu tàggat yaram maa ngi leen di bu baax di leen wax soyez bienvenue oui maa ngi leen di siyaare bu baax maa ngi leen di siyaare waa Mbooro bu baax jërëjëf Sora dictionnaire euh, comme ni ma koy waxee te dina nekk ay question yu tàng jër yoo xam si damay wax ne diwaanu Mboro wante diwaanu Sénégal wante tamit diwaanu aduna ndaxte si départ bi wax nga ko mu nekk site bu nga xam ne te aduna bépp ñoo koy bàyyi xel muy Vital TV bu ñu waxee Vital TV la nekk na site bu nga xam ne te lepp nga xamni da fay ci ñun suñu domaine bi ñu nek muy walu sport jëm ci walu lamb lepp nga xam dang koy xaar rek ci jëm ci walu lamb bo démé fofu dang ko fay fekk te timit mu nek lu nga xam ci dinaal depuis le 13 ba légui ni ñu ngi and ak yow di accompagner li nga xam ci mom moy journée bobu moy open press bi mu nga xam ci mom moy combat bi kon loolu na ne na lu nga xam ci buñ ko résumer ci lu gatt rek moy kané dina nekk ay question yu tang jër yo xamné askan wi ñom ñokoy xaar askan wi li ñuy xaar nak moy tax tey ji ay question lañ lay jox waaye dinañ xaar ci réponse yo xamné que car machallah dictionnaire bi bi nga ñëwee mooy que ne ci combat bi du ma ñëwaat après léegi di jaar ci biir combat bi waaye dama ñëw def tour avant combat bi. dictionnaire yaakaar naa nekkul émission bu nga xam ne euh, c'est la première fois ñu def ko ak yow waaye nag bala may wax loolu dama dictionnaire moom mooy kan. dictionnaire moom moy kan dictionnaire bi mooy ndaxte boo demee ñu bëri ñu koy laaj wax naa la ko fi benn jour ma ne gars yaa naan Modou nga ñëw tuddee sa bopp dictionnaire dictionnaire tey ji am na ñoo xam si sax si ñu xam seen xam léegi nag moo dictionnaire boobu mooy lan. waaw soo dictionnaire résumé bi dina yomb parce que dafa mel ni posé woon nañ ma ci question ma tontu woon ci xam naa ne wax waxaat lay doon rek waaw dictionnaire moom maanaam dictionnaire affaire bu yéeme la daal waaw booy xool gars yi nga xam ni sax ñooy jàngale maanaam maanaam booy seet nit koo xam ne dafa dafa màcc ci wàllu xam-xam dictionnaire dictionnaire dafa doon affaire boo xam ne bu ma nekkoon fii pour di ko décortiquer loolu mën naa fanaan parce que ce ay ay ay mbir la daal ay mbir yu bëree bëree bëri bëri waaw dictionnaire bi nag du dara lu dul am benn imaan ak benn gëm-gëm ak am luñ nekkoon di def doon jàng school ecole bii lañ ko tuddee suñu bopp école kër xale yi parce que fi lañ defee suñu CM2 ba door dem lycée waaw di nuyu au passage sama monsieur monsieur kamara ñoom monsieur Anne di siyaare di ñaanal monsieur Victor fa mu nekk gënal ko fi mu jógee di ñaanal tamit monsieur Mboup yàlla guddal fanam ba rêve bi mu am ci élèves yi yàlla mottali ko ko daal dictionnaire bi daal fii laa ko tuddee sama bopp te bi ma koy tuddee sama bopp du dara lu dul dañoo nekk def cours rek après monsieur bi wutloo ñoon ay dictionnaire ñun ñëpp après bi mu ñu ko wutloo ñun ñëpp dama gis tout le moment rek saa bu ñu demee ba am benn problème ci benn exercice loo xam ne ñun kenn xamu ko ci élèves yi dañuy ubbiloo dictionnaire di ko xool man ma toog imaginer xalaat mais dictionnaire bi moom li mu dañ ci bari na de parce que pourquoi ñun saa bu ñu demee ba suñ xel mënatul daj li ñuy wut ñu koy ubbi di ko xool kon lii mbër la daal lii am na lu ci nekk léegi dooleem jooju noonu laa jël tudde de bopp quoi bu bu dee rek ci wàllu lamb après nañ ko décortiquer li waral ñu tudde suñu bopp dictionnaire waaw loolu la woon kon daal moo bi ci gàttal mooy ko ne dictionnaire bi foofu la jógee mhm. mu ngi la topp bi nga nekk élève dekk di jàng mhm. ah, xarañoon lool xam naa ne tamit ndaxte dictionnaire moom ku xarañul yaakaar naa du nekk lu nga xam si lu utiliser mhm. euh, beneen bi des mooy dañuy ñëwaat mu ñëwaat ci biir kii bi mooy que ne dictionnaire bi am na ci biir ci biir jàng bi wante tey danga ñëw nekk mbër tuddee sa bopp dictionnaire te mbër ñëpp xam nañ ne léegi la sax Sénégal mu xaw a neex ndax million yeeg milliards yi dugg na wante bu njëkk ba ku koy def da ngay nëbbatu ndaxte nama yàlla baal ci kàddu gi di euh, làmb bu njëkk ba képp ku sa doom doon def mhm. du nekk lu nga xam si lu la neex la mhm. da nga koy laaxaan ay maamam di ko laaxaan ay papaam di ko laaxaan ay am di jàmmam mhm. comme que di kon kii li muy def nekkul lu baax léegi nag gis nga ne làmb macha allah léegi booy dem sax sa yaay moo lay sottil ndox taawul la ñaanal yooyu wante làmb bu njëkk bi bi nga ciy dugg est-ce am na jafe-jafe par rapport ak tey gis nañ ne buñ duggee ci kër gi macha allah wante làmb bi nga ciy dugg est-ce amul woon jafe-jafe pour ak yaa ak mère bi. xam naa ne paa bi moom làqu na wante yow ak mère bi. ak grand frère yi. Mhm. ak grand ak yi. Mhm. est-ce woon problème bu amoon foofu. waaw loolu moom mooy tout début est difficile rek. maanaam tàmbali koo gis moom day metti quoi wax dëgg fa yàlla làmb biñ ciy dugg metti na parce que am na ay combat yu yoo xam ne ngémboowuñ ci kër gi parce que mère woon ñu bëri. am na ay combat yoo xam ne dañu génn dem ba ci tool yi ngeen bu dem bëri daan am na combat yoo xam ne dama ñëw fii benn mbapat boo xam ni ñoom benn benn benn groupe bu nekk fii daal ñoom Ibou Ba seen groupe bi xaw ma nu mu tudd tuddati ABS ñoo tëgg benn làmb ay tubaab jàppale leen jox leen ay saaku ceeb ma ñëw fii nii ci làmb bi ànd ak caraka xam nga caraka bi ma ñëwee manqué ba caraka pour ñu dem làmb jam bapat moomu kat lañ woon biñ demee ma ni maire ñaanal ko quoi kii day bëre parce que man wax damay bëre parce que dañ may tere mais bi biñ demee ba ci biir làmb sama benn maire maire amee seen léegi ñu ngi tuxu fële bi ma ñëwee làmb ji liir ka ma gis nu mu demee ñu tek sa ko ma mané man pourquoi pas ma imposer sama bopp donte jigéene suñ kër xam nga rek lu ay di mm, li da koy nirol quoi après ma bima ñewé ma ñëwee ma raka ba paré dem ci lamb ji dugg kër mère amé sen ab sœur sur ce temps ñu ñu ngi am ben champion bu ñaan mudlo bu mbay meppal xam nga ka boy bobu ken mënul wona jëflenté ak mom bi ñewé ci lamb ji mu ëppoon ñu doole lolu mais mom ma gis ni man suma taxawé te man xamna lu nekk ci man suma taxawé taxawee ma dina yobu lamb ji te maa ngemb caraka ma ñëw ma ne Ibou Ndiotté ak Serif yen yéenay tirage ñu ne waaw ma leen bu leen tirage léegi man damay bëre léegi mais na ngeen ma jox Modou Lo mbay mi pël boobu kenn mënta bëre ak moom mm-hmm. barki sëñ Fallou Mbacke yow xam nga li may wax parce que moom moo ñu magoon ëpp ñu doole mu dugg ci làmb ji ñu tirage caraka am walaa bal boobu walaa bal mu ngi nekk géej ñu bëre këll gi ñu bëre combat bu metti combat bi nul ñu def tirage walaa bal ma am lu ma metti ma war a bëri Modou Lo bu mbay mi pël boobu gars yi ñu ma doon xaar parce que maa ngi booy nekkoon ci écurie bi waaw jafe woon a jëflanteel nag parce que man làmb li ci am lépp laay def sóora sóora làmb ci axaanawu ma ci dara bari sëñ Fallou boo gisee mbooloo bi topp suñ ginnaaw ak li ñuy ñëw ci mbooloo bi après ñëwal nga xam ni waaw mbapat boobu noonu ma ñëw bindu am Modou bi ma amee Modou Lo pël ñu bëre jour boobu deux fois laa daan ci benn tàkkusaan premier chute bi dama ko jàpp daat koy zongale bi ma ko zongalee Paye Cheikh Faye jox ma victoire pëlim dañuy toj lamb ji xam nga ñoom temps yooyu dañuy def loolu ma ne ba Cheikh mu ne ma ma ne ko comme que ñoom dañuy toj lamb te dañ koy toj baal ñu bëriwaat ñoom Maadou Sarr ñoo ko doon tëgg ñu bëriwaat ma jàpp ko zongale même chute defaat ko deux temps daan ka daal dem daje këll gi këll doon sama grand doon champion ma jàpp ko zongale ko moom it bari sëñ Tuubaa bi ma ko zongalee sóora ci la këli gi commencé dem yóbbu ma këram néeg bi mu dëkkoon guy gi lii faaw ma nettali ko mu leer li waral këli gi topp sama ginnaaw yóbbu ma néeg bi mu nekk ci guy gi bi mu ko ubbee wan ma ay xeetu bagage làmb yoo xam ne damaa tiit parce que man làmb maa ngi ko jàpp woon rek mooy li ñuy man dama jàpp woon saa bu may dem làmb dinaa wut ay dagg ay këyit def ci dem yëngal bëre daan man loolu laa gëmoon mais après këli gi xamal ma làmb nii ak nii la su ma demee ba jox la lii nag am naa lu ma yaakaar ci yow gënal fonk sa bopp mais depuis boobook léegi wax dëgg fa la ay tànki kanam rek la ñu am mu topp suñu ginnaaw loolu moo waral këli gi topp suñu ginnaaw mooy bi ma jëlee saako ceeb boobu indil ko sama yaay sama yaay ni kon kii da doon bëre kii bi mu fiy jógee benn mbër la fi ngemboon dem kon dafa bëre après ma ne ko mère dama doon bëre de noonu la demee mu xaaj saako ceeb bi jox digg bi caraka bàyyi fi digg bi ci kër gi waaw loolu daal bokk na ci lu ñu dugal ci làmb mais nag gàllankoor yi amoon ci làmb yëpp mënuñ koo wax musul nangu ñu bëre mais nag làmb ñun ci combat boobu ci combat boobu nga sentiré ne maire bi instant bi commencé na laa a loxo. pour am ba pas yaakaar sax ndax kenn du jur sa doom ne uma ci moom yaakaar wante gis nga ne boobu la. Mhm. deretu diggante euh, euh, doom. Mhm. ak yaay ci wàllu làmb boobu la dugg si. waaw boobu maire bi sax dëggantaan dëgg rek laay wax. boobu ba tey d'accordul parce que maire bi maanaam accepté wul woon man bëre mais li tax bëggul may bëre du sama cooba rek dara mais damaa yërëm xam nga rek diggante doom ak waajuram mu bëggul mu bëre quoi parce que yëg ni ne làmb dafa metti lol motax tax bëggul ma bëre meer du lanen man sumay may ba tay ni meer bi day am problème man damay yëg loolu te loolu day jouer sax sama lamb estat bar seigne Fall lolou day jouer ci li nga xam ci mom moy ay combat moy li ñu wax rek ndax té lamb li ma wax bu ñëk ba sa dom bu koy def tay rarement ngay gis koo xam ne départ bi nee na la sama papa wala sama yaay ànd na ci dañuy nëbbatu dañuy laqatu euh, di ngembo ci àll bi ba mee ba champion bi door a génn ci lañuy yenn waajur yi xam na nag li nekkatul caaxaan ñoom si la ñuy ñëw sa téye ko des fois nga gis ne ménager ménager yu bëri ñuy am seen i seen i i mbër problème ci foofu ndax départ bi ñoom ñooy nekk ménager yi di signé contrat yi wante bu ñu demee nag ba ba yi génn ci lañu retourner wat waat wajur moy sen mag bu góor wala sen papa ñëw ki ah, moko ko ndaxte pourcentage bi ci genn dañ nan no du genn ci li nga xam mom moy euh, kër gi motax muy def des fois muy am jafé jafé wante lolu yow mën nga ma résumer rek ci li nga xam si moom mooy sa si si say combat tay maam tey ñaata combat nga am diran bi ngay mbapan mbooro ak ñan nga ci daan ak ñan nga ci perte li ma ci ay combat nak soora alhamdullah quoi mais mënuma ko lim parce que man bëri naa fi mbapat mbay may pël mbapat moo xam ne 27 lutteurs la ñu woon xam nga kan moo ko finaalu man ak Raoul Amadou Penda rek Xaadim Ndiaye 27 lutteurs ma gën cee doon booy boobu maay jàng lycée 27 lutteurs ma dem final bëri naa fi lamb kereb vacances fii ci buntu bayal bi sama yaay doon ma seetaan si samay mag boobu ëppoon nañ 30 lutteurs yaa ngi koy fàttaliku si ça te ma jël final man li ma bëri ci ay mbapat mbapatu ñoom tuuti Ndiaye ñoom mbapat biñ tegon man tafa mba modou bey ak pierre ma jël mbapat momu ak dafa bari man ay combat yu mu bari dafa bari manam da rampé nga waaw man bark serigne touba man mm-hmm. dama jaante ci walu lamb legui nak legui nak bi nga jaante ci walu walu lamb legui nak bu nga xam ci duma ne dugg nga ci nga xam ci mom moy cour des grands wante manam aksi nga ci li nga xam ci moy yoonu dugg ci cour des grands legui nga ñew nek ci écrit jëf jël écrit bi am jafé jafé donte que ne sax mën nañ ne mbooro écurie yi nekk mbooro ñu am jafe-jafe su ma koy wax mooy lañ fi gisoon buñ ne woon am na récépissé muy écurie jëf jël gis yeneen yeneen yeneen écurie yi fi nekkoon ay écurie mën a tuddee clandestin buñ ko waxee mooy que ne def di nëbbatu ndaxte écurie bu fekkee amul récépissé écurie boo xam si mbër ya fa nekk amuñu licence maanaam nekkul écurie boo xam dañ ko reconnaître ci wàllu CNG dañ noonu pour dem bëre su mooy su mooy présenté wu ne ah écurie jëf jël laa bokk wala écurie kat rock énergie laa bokk wala écurie wante écurie pour mu leer day am récépissé bu wan ne écrit bi valable na si li nga xam si moom mooy euh, làmb pour même bu demee da nga au niveau national sax booy bëree ci récépissé boobu ngay sukkandiku war mën ci sukki ñu gis ne dem nga jëf jëf jël jëf amul woon récépissé Euh, mbër yu bëri nekkoon fa ay mën naa fay lim ay champion mhm. ku mel ne tey ji euh, Baboy ku mhm. mel ne tey ji mhm. ku mel ne ki nga xam si tey ji mooy Senjeeñ ku mel ne ki nga xam si moom mooy Elton bëri na ki nga xam si mooy ñoom ñu ay ñaaxa caat naar ñoo ñëpp tey nekkoon fa te tey ba léegi écrit ba amul li nga xam ne mooy récépissé yow nag lan moo waral nga fipp rek daal di génn pour réponse bi gën question bi gën a leer mooy sa licence yow ci ban écrit la nekk man sóora sama première combat arène bi ma koy am pour wax la gëm-gëm bu ma gëm ak bëgg laa ma mënu boobu matugu maa am carte d'identité sama carte d'identité mag bàcc laa jël dem defar ci carte d'identité Thiès ci benn écurie écurie écurie ñoom Pambay bu Thiès bi ma fa defee carte ci carte d'identité bàcc parce que amaguma carte d'identité te licence pour nga am ko da ngay am bi ma ko defaree false bëri ci premier combat perte ko ak ni mu demee gis nga ni mu demee làmb jooj noonu man a Samba Ndiol waaw mënoo wax lépp quoi combat boobu noonu nañ ñëw ci ci kanam acca combat boobu noonu bi ma ko bëree ak ni mu demee manaam dama dem écurie Yoff di fa préparer combat bi ma amee licence fi dama dem écurie Yoff ànd ak santan jo bi may àndal champion boobu mhm. di ko nuyu o passage quoi am na lu ma defal loo xam ne lu ma ko sama bopp jàmbaar la saa bu ma amee laa ma gis ko fi mu jeexee mu dem kon taxawaaluwul mhm. man maa ko yëkkati mhm. moom laa àndal écurie Yoff di préparer ndox ay champion ay gin bu Yoff ñaa dumbul caatu yoof sekk ndaanaan champion bu ma doon dégg keroog bokk nañ benn ëtt làmb di mët mut jabu yoof di ko combat ma nekk ci seen biir di entraîné di entraîné di entraîné ba sama benn père war a ber ékiram loolu wax naa la ko bàyyi itam course bi may àndal kooku moo ma distingué xool ma ci biir booy bi muy biir écrit woo seex santan sama mag ni ko seex mu ne ko mu ne ko booy bi sa booy boobu dëkk mboor te mu fi ñëwoon di préparer combat man damaa jug pour ubbi écrit bëgg mu bokk ci booy yi bokk sama écrit barke Seydina Muhammad wax na la ko nga dégg waaw wax na ma ko ma dégg damaa bëgg mu bokk ci booy yi nga xam ne sama écrit dañ ciy bokk santan wax ci ak man ma ne ko santan yow yaay suma mag man a na loo xam ne buñ la koy wax bul ma ci wax yow wax defal rek exécuter rek bi ma waxee loolu peer jot ma téléphone ma ne ko père mu ne ma ma ne ko bi ma ñëwee ci dëkk bi dëkkuma fa daa am noo ma def da nga maa doomoo ko hmm. moo waral tey nga am cëru di ma ñaan waaye waroo ma woon sax ñaan day càgg nag cuuj ginaar sax boo ko moomee boo ko bëggee def dara di nga ko neexal c'est vrai hmm. mais da maa waroon na ñëw rek ni ma yóbbu naa la sama écrit hmm. te kon duma ci teg benn baat bi ma yóbbee écrit man la njëkk jël sama licence man la njëkk jël sama licence defar ko ci écrit bi bi mu ko njëkkalee man la ci njëkk a jox combat ma njëkk cee def sorti njëkk cee am ndam est-ce que yaa may dégg. maanaam turu écurie boobu mën nañ ko xam. écurie Baye Tam Yoff. écurie Baye Tam kon daal fi ne nii ci gàttal mooy dictionnaire tey mhm. boo koy wër. Mhm. écurie bu Yoff nga koy wëree. Mhm. maanaam licence am foofu la valable. loolu pour pour ñi nga xam ne tamit ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi diglu wala tey nga xam ñu ngi dégg wala ñi nga xam ñu ngi seetaan tey bu ëllëgee bi nga xam si tey dañu bëgg topp ki nga xam si moom mooy champion bi nekk dictionnaire tey bu ñu koy topp ñu ngi koy xam si moom mooy écurie Baye Tam bu Yoff foofu la licence nekk foofu la valable léegi ñu ñu ñu profité pour gagner si li nga xam si moom mooy temps bi ndax tamit war nañu dugg ci open press bi war nañu ñëw si combat bi décortiquer ko ba xam si li nga xam si moom mooy faay bi ak li nga xam si moom mooy question ak réponse yi li may wax hmm. Tam nga perte ko mu nekk combat boo xam ne combat bu difficile la combat bu metti jaante nga ko wante suñu borom moom mooy dogal comme li ma koy wax hmm. tamit am na ay faay yu xam si moo ci moo ci am ci biir combat bi hmm. nga jógee foofu préparé waat deuxième combat. ci même écrit bi euh, yalla mayat la ndam ci bobu bi mo nek sa troisième sortie nga pertat ko dictionnaire lan moy problème am ak combat bu jugee ci combat am ndam deuxième combat sunu borom def safaan bi lan moy problème bi. waaw Sora aduna mom jam sabab lu rek la man quoi te ñun ay jam lañ quoi te jam bi da am fu mu yam digënté mak borom ñun xam nga lu war buñ amé combat dem jaayante dem jaante entraîné and ak suñu mbokk buñ ñëwé stade tamit dañuy appliquer parce que lamb lo ligéyul doo ko fekk ñun musuñu ñëw lamb simé ko ñu ni acham musuñu ñëw tamit bëre bëre bo xamni dañuy xeeb man ñi nga xamni ñom ñoom laay muy walu lamb di bëre ak ñom ñom ay doomu adama lañ man doomu adama la di leen jox avance jox avance ñu and ak séri mbokk ma and ak samay mbokk ñu dem jaayante ma ñëw jaayante biñ ñëwé jëflante jëflante rek laa man digganteem ak ñoom li ci des yàlla la cëru yàlla nit yéegu fa yaa ngi dégg man combat bi soro du ma la nax de barki Serigne Fallou ak yàlla naa dee dama doon yeewu 4 heures de matin àddina signal ak Modou Lo bu Yoff dañuy dem géej ba ñëw entraînement ba ñëw buñ ñëwee barki axuraan fi ñuy toog di naan fonde ci la ñuy noddee première nodd barki Seydouna Mohamed ci dëkk boo dëkkul buñ ñëwee 4 heures de matin buñ demee père sama père sama course day dem géej bu yewo di dem geej fekk ma ci neeg bi fekk ma ma takk bu suuf day waaru day foog ni ma entraînement day yéemu bu ma nee dem naa ba ñew danaa am kon ban heure nga jugoon. lool lepp nek ci li nga xam ci mom moy combat bi comme comme num ko waxe ndax timit combat mok choona ñoo and wante batay tey bi ñu ma ñëwaatee te ñëw nañ ci ñew nañ sa ñaar open press ñew nañ bi nga xam ci mom nga def fi ci bayalu laser bi ñew nañ ci bi nga xam ci mom nga préparer le 13 février bi muy fi nga xam ci mom moy euh, bayalu Cheikh sidati bi ñu ñëwee mbooloo mi donte ko sax man bi ma ñëw tardé naa wante fekk naa fa mbooloo mu nga xam si car macha allah car macha allah bu ma ko waxee mooy que ne lépp lu ñu doon xaar ci wàllu mbooloo ci wàllu ambiance ci wàllu li nga xam si moom mooy accompagner am na fa. Mhm. est ce que tamit mbooloo boobu noonu fugg boobu nga xam si tey jii car macha allah te sa at yi wala tey combat yi demeegul noonu tey jii nekkul pression boo xam ne moom nga bëriwaale. Mhm. non man làmb sóor du ma am pression ci làmba wax dëgg fa yàlla man nag du ma dara quoi góor yàlla laa rek. waaw te damay dem di jaayante rek di sabablu ndam nag saa borom moo ko moom quoi wax dëgg faa la mais làmb ju jot man dinaa xam li yëkkati nit ñi li ñu bëgg te dinaa ci nekk durant tout la préparation di combat mais bu ma ñëwee ba esaat man li ma war rek mooy appliquer waaw su ma demee nag naam ma bëre daan damay sant quoi du sama jàmbaar rek waaw su ma ñàkkee damay delloo cër bi saa borom xam ne moom moo ma doon may tey mu xañ ma. combat bi ma jógee métti na ma man su ma la waxee métti méttiwu ma du dëgg parce que combat de déclenchement la woon may yóbbu sama premier combat Dakar. damaa waroon dinañ ñëw dinañ dinañ ñëwaat ci ci ci combat bi dakaar mooy sa premier combat. waan sax damay ñëw am fu may retourné waat tuuti. Mm. ñu door duggaat ci komba bi ndax mm. tamit euh, li nga xam ne si tey àdduna bépp wala tey mbooro gépp dañ koy xaar ndaxte mbooro toog nañ 4 ans yoo xam ne làmb jiw fi. maanaam kenn tëggu fi làmb amul benn mbër boo xam ne da nga takk sama ngemb tey ji maa ngi dem jàmm gën wala maa ngi dem ngay ngay wala ngi dem gunaas wala maa ngi dem fi nga xam si mooy aaji mbooro dañuy tëgg làmb mu nekk jafe-jafe bu nga xam ne doomi mbooro yi dund làmb ñu ngi koy jooy ba pare nekk lu nga xam ne dafay gën a rey tamit làmb muy bépp lutteur bu nga xam ne yaa ngi biir mbooro war a takk ngemb tamit loolu est-ce que tey jotul yéen mbëri ngeen toog ngeen waxtaanaat waxtaanaat ak ñi nga xam ne ñoom mooy ménagères yi waxtaanaat ak ñi nga xam ne ñoom ñooy promoteurs yi wante waxtaan ak ñi nga xam si mooy CNG bi nga ñoom nekk fii Mboro te tamit bay ci sa weewu tànk mm-hmm. su fekkee fi ngay déparé dafa am problème mm-hmm. fépp foo mënti jëm tamit jàppal ne booy arrivé ji ci problème rek ngay nekk est-ce que tamit loolu nekkul problème boo xam ne dafa nekk ci biir Mboro te ba léegi gars yi amaguñu saafaraam waaw Soro li ko may yaa ma ko gën a xam yaa ma ko gën a xam parce que bi ngay tëgg làmb man bëreegu ma sànq toog nañ ci néeg bi nga ne ma mbër man la man la naam nga ne ma du ma ne la fekke naa làmbi démb waaye am naa lu ma ci fekk ak làmbi tey kon loolu dañ la ko nangul maanaam amul làmb ju mbër di def fii wala nit di fi ñëw di wax waxu làmb te doo wooyu sóora loolu yàlla moo la ko defal ñu nangul la ko mais jafe-jafe bi am làmbi mbooro yow yaa ñu ko gën a xam du mbëri de booy bëgg nañ bëre parce que am na ci ay booy yoo xam ne tey jii nii buñ sañoon suba làmb am mbooro ñun ni ñuy jëlee suñu saak di dem ay ñangal yéen tubaab jalaaw mbi jaam di dégg ay mbabat ñun ñu ko doon xalaat un bon ñu xëy benn jour ñun ñu ah mbër ginnaaw suba mbapat daa am mboora bañ parce que tamit li ñuy wane ci àll bi wane ko suñu dëkk moo ñu gënal quoi mais munuñ koo am li tax munuñ koo am du ñun soit gars yi nga xam ne ñooy tëgg làmb bi li leen commission làmb teg métti na ba munuñoo tëgg làmb mbër yi fi nekk di bëri soit ñenn ñi gëmuñu làmb génn gëm goo xam ne war nañoo dem wuti licence te mbir tamit boo ci nekkee mu jaral la da ngay wut li tax ngay bëre ñaata combat la fi ay arbitre CNG ñëw sauvé ko mbër yi ñu mujj bëre mais ñooñu est-ce que ay mbër lañ mais mënumaa taxaw naan kii du mbër ak kii du mbër man sama bopp laa xam sama bopp laa xam quoi yi bu dee bëgg nañ bëri nañ dem wuti licence bu dee amuñu écrit bu valable ñu génn dem wuti écrit ñu adhéré ñaata yoon laa fi woo benn booy kaay ma yóbbul écrit diw ñu bañ mais du ma cité tur tey yaa may dégg lamb dal mu ngi non rek mënuma wax li ci nek lepp wax deug fa la waye safara bi yow yow gënuma la ko xam wax deug fa la gënuma la ko xam man amna lu beri. ci xam lu bari wante bi dafa am lu nga xam ne li nane pesu kanam borom mo koy fajal bopam da tamit dafa am lu nga xam si aduna bi mo koy xaar te si yeen la réponse bi di jógee pour mëna dem si ñom te limay faral di wax rek bu ñu ñëwaatee dañ may tàbbi bala maa dugg ci biir combat boobu noonu ñu tàbbiwaat tuuti ba léegi ndaxte dictionnaire Mboro bëreetul ay adversaires yu fi ne mën naa ci cité cinq ba six ñoo xam ne tey ñu ngi fi muy comme ñoom quinze pelin ñoom euh, mën naa ci wax amul frein mën naa ci wax Kaaw Cissé mën naa ci wax Modou Lo bu mbay mbay pël mën naa ci wax euh, su ma juumul euh, tey ji ñooñu laa gën a xam tey ji ñoo xam ne tey ñu ngi takk ñu ngi takk ngemb nekkaat ci biir làmb waa ñeneen ci des ñëpp tey bu subaa ñu ne la mbër la même même ndigal peut-être que ne moom it mu ngi ci biir tey bu subaa ñu la man mbër laa bu ginnaaw subaa ñu ne la bàyyi naa bàyyi hmm. léegi dictionnaire est fii ci diwaanu Mboro bala ñuy retourné waat na dañuy tëgg làmb mooy que ne yéen ndax def benn réunion boo xam ne yéen ngeen ne woon yenn mbër yi ci Mboro dootoo leen bëri seen biir hmm. loolu tamit faaw mu leer mooy que képp kuy tëggati làmb est-ce mbëri Mboro yi dictionnaire am na benn mbër bu nga xam fii ci biir Mboro yoo xam ne noo day bëre ak ñoom mbëri Mboro yëpp laay bëre ñëpp laay bëre suba nii bu ñu fekkoon maire waat jox ko avance bu ma arrangé bu subaa ma dem antenne ñëpp bàyyiwuma fi kenn ñoom ñëpp ñoo ma mag ñoom ñëpp laay bëreel. kon dictionnaire amul kenn ku nga xam si bàyyi na ko ci làmb pour mu leer ndax tamit loolu dafa jot jot pour mu après mu leer mooy que ne ñi nga xam ne ñoo bëgg tëgg làmb mën a xam ndaxte tey bu ñu nee ñoom dañoo def seen réunion daane ne ah euh, làmb bi kat léegi adversaire day jóge ci àll ba ñëw wante fii ci biir mbooro ñoom seen biir dutuñu bëre dictionnaire wax na lu leer mhm. mooy képp ku nga xam ne si bokkul ak yow nday ak baay pare na pour sa affronter ak yow kon mbëri mbooro yi booy boo ngeen bàyyi ko xel ci mbëri mbooro yi pour ñu bàyyi ko xel mooy que ne tey jii nii dictionnaire te nekk na lu nga xam ne si lu lu métti la parce que ma neen lu métti la bala maa ñëw ci combat bi dama ñëw ci staff bi mhm. staff bi bëri na coow loo xam ne xaw ma yëngu ko xaw ma yëgu ko mhm. ci biti après combat bi wante tamit avant combat bi dictionnaire dafa changer SF dafa raxas SFB bi man bokuma won won combat bi be ñeuk ma dan ma dan jeli ma dan jeli ji dem ci maray ah bi di ñew ma dan contactal wante bi ma contact contactul ak man wona ko pour ñu contact wante nanguta contact man man lu bëri ma diko deg ci mbéd mi tay réponse bi mu ngi si si si dictionnaire motax dina tay dina tang jeer moy que ne lan ngay wax lolu ci nga xam ci tay ji ñoy ñoy ñoy population Mboro daté dictionnaire lan la dafa dem Dakaru bayi wa Mboro waa dafa ñëw ne gis ne staff ña fa nekkoon lañ ko doon lañ ko doon lañ ko doon jural mënatuñ ko mu raxas leen lan mooy problème bi. waaw ci cadre staff bi moom waaw dinaa ci wax lu tuuti rek lu tuuti rek man boo sora man man booy ma doon àndal démb ak tey n'est-ce boo ñëwee ci kër gi ñoom nga fi fekk ñaata yoon nga fi ñëw émission su ma neexoon boo ñëwee fi émission da ngay fekk fii kenn du fi xaj mais émission bi laajul loolu Kanta nag ñi nga xam ne dañoo nekk di wax ñoom wax rek lañ am quoi man li ma war mooy jëf liggéey lan moo tax man ma nekk fi mbër gën fee doon ndaw chaque année may bëre dëgg la yàlla la de mais sama jàmbaar dacee boq man maa bëgg di bëre ñoom nañ dem ñu wut licence ñu bëre. Kanta nag yeneen gars yi nga xam ne ñu ngi naan ñoom ñoo doon wuti butéel léegi ñoom loolu noonu yow lañ koy wax sóora. parce que tamit nit boo ko yàggee teg ci néeg di ko nax di ko nax ba mu génn néeg ba xam ni biti gi moo gën a neex néeg ba day bañ ci biti lay toog loolu nag wax la quoi yaa am réponse la dafay leer ndax te li ma la wax tey moom lépp lu doon lu doon loon fi lay leere mm. mooy que ne da daan am ñoo daan jox say wàllu xar fa fuufa ñu duj ci biir néeg te ñu dem léegi nag yow dem nga ba ba couvrir ne ñii dañ la daan nax moo tax nga changé wala waaw ah, na déedéet léegi wax ko léegi da ngay jàkkaarloo ak askan wi nga wax leen ko bul ne ma waa daal di sëgg daal di ne mel ne man nga koy wax da ngaa dafa am ñoo xam ne damaa yoroon sama mystique daan leen ko jox ñu ko daan mbappoo léegi nag moom nee na moom dem na ba xam ne ñooñu lii ko daan gën a tardeel ci wàllu làmb ñooñu la ndax tamit làmb te ñu wax ko te dee mooy làmb dafa baaxoo ak mystique ndaxte bu dul sax mystique bi mooy daan ndaxte doomu jàmbur tey ji mënoo tey bëre fu mel ne Iba Mar Diop wala nga bëre fu mel ne Arena wala nga dem Thiès la joor nga bëre fa wala même biir mboora gi ci ci bayaalu la bi sax nga simmee ko devant tout le monde te mu amul ay muslaa yoo xam ne daf lay daf aar donte que ne sëriñ bu naan la sama bitéel bi moo lay daan wala lenn xëy na kooku ci ngëm-ngëmam la koy teg mm. waa ñun am nañu ngëm-ngëm bu toll ne ñu ne bitéel yi bokk na ci luy aar mbër yi mm. waan nag yow say bitéel non yi ay ndox lañ ci daan def mm. non xam nga sóora maanaam <laughs> ah nekk di def quoi émission te bëgguma kenn seetaan émission bi ni mbër man lay waxal ah. yaa ngi dégg <laughs> dama ni nit boo ko tëjee ci néeg naa ko néeg bi daan neex ba mu génne gis bitig bi dàq néeg bi day bañ du dellu ci néeg bi ci biti lay toog loolu nag olof la dama ni man loolu laa wax quoi. <laughs> mais yeneen yi yëpp man waxuma ko man loolu laa. en tout cas daal Dictionnaire daw na daw na daw na réponse bi da mu leer dafa daw réponse bi li daw réponse bi mooy que ne li may bëgg di ko xaar mooy que ne dañ ma doon nax man loolu bëgg dégg dañ ma doon nax léegi màgg naa jël naa samay mbiir jox naa ko ñi nga xam ne njortu naa ne li ma bëgg ñu ma koy defal léegi moom euh, croix na foofu ba tey du ma la bàyyi Dictionnaire am na ba tey wax naa la ko sànq am na ñu xam ne nee nañ ci biir staff bi. dañoo gis ñeneen ñu nga xam ne dañ leen a jëlee feneen ñëw indi leen ñoom mooy bu ñu nekkoon deuxième poison wala première position instant bi dixième position lañ taxawee ci combat bii léegi nag li koy waral mooy dañ ne ci wax ji gàtt gi mooy dañ ne dañ fecc kóllëre ñi ne am xaritu tey loolu lépp tey mu leer waaw Soro loolu moom naa ci sawar tontu sax parce que damay dégg ñu ne olof Ndiaye lu sotti bari borom ko te sóora làmb boo fi nekkee di ko def non ginnaaw bu yaatu tamit danga nga koy ñaan yow mbër mi quoi. man di Tionnerre bu dee li may bëre mbapat laa yor dem di ko bëre jee arène dara yokkul man màgguma quoi màgg du ci jëmmi mbër kese de sóora. Mm-hmm. entourage bu màgg dafa baax ci mbër dëggam déet mm-hmm. sóora yow man ma am la sama entourage moo gën ma ñàkk la mm-hmm. te yow bokkoo ci woon kon léegi boo ñëwee bokk ci am na yenn tet yoo xam ne duñ comprendre duñ comprendre de xam nga lu ñuy wax hmm. daa jël kee teg sama kaw demewul noonu nga hmm. ay xam nga rek sutu mboro nak yow xam nga soore xam nga lamb hmm. man booy ma doon topp lamb ñuy ñëw fii nii su may bëree yow soore ñaata yoon laa fi ñëw lamb yoo xam ne ma sax su ma ñëwee esat yow ci micro dama lay dégg nga naan nañ téye dictionnaire bala moo dugg ci lamb bu duggee mu toj ñaata yoon combat ndigal kaw si ñaata yoon nga nga sànni moo boobu du man loolu yàlla moo koy def kantaan nag yeneen gaa yi nga xam ne dañoo gis ni man damaa wut ay yeneen nit barki axuraanu karim bu ma ko wutee yàlla naa dee wutuma ko man du ma war du ma war du ma bew man góor yàlla laa lu ma am bokkook booy parce que booy man ñoom ñooy def ci man en ce moment te man ëllëg bëgg naa def ci ñoom booy defaguma ci ñoom de ñoom booy li ñuy dem di ko wuti ci seen xaalis lañu koy wutee di ko def ci man kon man damay xalaat retour ba man damaa war a jaayante grand frère yi nga xam ne dañoo nekkoon sama ginnaaw sóora al yow daawoo ñëw sama réunion staff sax moo tax laajal booyee man boo ñëwee sama réunion staff fii nii fii kenn xaju fi mais ñi nga doon gis démb ak tey ba tey ñu ngi woon fii mais am na ci ay gaa yoo xam ne tamit xam nga lu ñu bëgg hmm. ngay ñëw di leen neexal non loolu amu ci am na ancien gulaar yu fi nekkoon doon bëre ñoom man li ma leen defal fayaguñ ma ko ñoom dañ doon bëre man la ma mobiliser booyee aw ak ñoom ci tool yi rien pour ñu seetaa leen dañ doon mobiliser may sànni ay xeer parce que dañ leen a daan neexuma dañ doon mobiliser may jàppante ci dëkk beek fu nekk ñoom ñoo war a delloo cër boobu boroomam. ñoom ñoo ci tolloon ñun ñu leen koy defal ñun ñoo ci toll dañoo war a ñëw bootu suñu ginnaaw naaw ñu nii la ak nii. delloo la loolu. waaw léegi mu nekk lu nga xam ne tamit lu leer la man li ma ciy dolli rek ginnaaw moom bi mu kiiyee mooy que ne làmb maanaam estaf boo ci am suba boo gisee beneen da naan bi may waroon baaxut mooy que làmb moo nekk lu nga xam ne maanaam li mu ëmb dafa bëri bokkut ak football bokkut ak basket bokkut ak leneen làmb moo nekk loo xam ne da ngay làmb ba sonn te doo daj maanaam li ngay làmb te doo daj dafa bëri léegi nag bëri nga ñetti catégorie donte que lépp làmb la ñetti catégorie mooy benn bëri nga diwaanu mbooro diwaanu mbooro moo ëmb Mboro li ko wër mooy Daaru Xuddoos bu dem nga ba tey ba njaay côté yooyu yëpp nootu affaire yi mooy diwaanu mboor nga jugee waaw nga jugee foofu mhm. dem fi nga xam ne moom mooy région bu ñu naan région Thiès mhm. région Thiès ba tey mboor ci la bokk mhm. wante ci biir région Thiès boobu demaat nga ci beneen région boo xam ne tey ñu ne ah mbër àgg na wax naa ko keroog ci bi mooy jëm nga foo xam ne mbër bu nekk ci département wala nekk ci région fan nga ñaane yàlla àgg ji muy diwaanu Ndakaaru ñett yooyu ban mooy seen différence Thiès mbooro dakaar waaw loolu dafa mel ni waxtaanoon nañ ci sax ku xam Mboro xam Thiès xam dakaar xam ni mbër muy takk ngémb di bëre tey yaa ngi ñaan bës jot suñu borom dimbali la nga dem bëre dakaar am ndam Bombardier fu mu dëkk. Mbour Yékini fu mu dëkk. Yékini mu ngi dëkk Joal. waaw dafa bari ay champion yoo xam ni ñoom dëkkuñu Dakar. Mm-hmm. yaa may dégg mais rêve bu bëre dakaar la ñu am parce que Dakar foofu la làmb ji nekk. si amee dégg sóora mm. ñun bi ñuy bëre mbapat nii dañ doon ñaan yàlla màgg ba dem bëre ci Dakar parce boobu ñu ngi gis ay Modou Lo ay Balla Gaye kon ñun bu ñu demee dëgg la màggaguñ mais ñu ngi ñu ngi ñu ngi sant quoi. ñaan yàlla bokk ak ñoom tàkkusaan ngi sant. Mm-hmm. parce que keroog boo gisee ci journée boobu mu bëre journée bu mag la sóora mm-hmm, mm-hmm. journée boobu am na benn mbër boo xam ne dakaar la nekk. Cambérène tekk jël mm-hmm. Mm-hmm. nee na ma dictionnaire mënu ma ma man sax da nga ma jaaxal parce que man li ma jaaxal damaa lire affiche bi ngay bëri sixième combat mm-hmm. mais booy yi bëri combat yi ndaw yëpp ci seew dañoo am coow biir Dakar ma ne ko hé mu ne ma ma ne ko xamal ñoom seen coow man biir Mboro mbër mu mag laa fa donte xale la soo rek yaa may dégg bu baax caraka sama benn booy daf ma woo am lu koy métti lu mu ne ma mbër leen rek moom métti mooy combat yi bu arbitre ne prip yow lan moo tax munoo xaar nga dimbale nit dina naa la foofu dañ fay ñëw waxtaan fa lu yaatu dimbale ma rek mm. mooy que ne foofu ba léegi nii nee naa la mm. dañ fay ñëw mm. fi ñuy ñëwee mooy après ci biir combat bi nee naa dinañ ko décortiquer doon que ne man nekkuma woon stade wante am naa lu ma ci am lu bëri loo xam ne tey jii euh, dama bëgg adduna bi adduna bi xam ko léegi si ñëw nga foofu noonu wax nañ ne nga lépp différence yi bokkul mooy Thiès Dakar ak Mboro ndax tamit ñëpp fa ñëpp tamit bu ñu bëggee dégg daal yi dañuy naan dañu jàpp ne làmb ja Dakar la nekk li li li li li li Modou Anta naan guddi guddi Thiès mm. bomba jëri ko wax guddi guddi Mbour mm. tey dictionnaire da daan bëgg wax ne guddi guddi Mboro mm. donte que da takkee fii ngeen bu dem daan wala même la daanee wante lu mënti xew Mboro ngay fanaan si loolu dafa am solo wante léegi si si si loolu noonu ma xuus dugg ci biir combat bi comme waxoo ko caraka wax na la ko sóor jëy taxaw na wax ko Euh, ben Habib sax bu bu bu bu bu nek ci ci ci ki bi nek supporter wax nako ko kané lan motax tax dissonné ndax mo bo xamna na son ñor na la motax du xaar fugu jeunesse bi la wala tay mbeuri nga japp ñuy taxaw sa kanam da nga japp né ñom ya leen dakk bëre wala yow bi nga daré bëre manam mbapat li nga commencé mbapat mom nga bëgg yobbu arène wa nak mbapat arène bokku ñu ndaxte li nga doon jàppe di ko bëree ci bayalu beri la seer bi di ko bëree école Paate Kan di ko Joko di ko bëree kii non boo xasee àgg Thiès boo xasee àgg Dakar beneen dictionnaire la ñuy gis mm-hmm. léegi lan mooy problème ba yow léegi nag mënoo taxaw waaw li ma doon bëree Dakar di ko bëree Joko ak Fass ak Mboro ak arène ba lan moo ci wuute du ay coup waaw ay coup moo ci wute de mm-hmm. ñoom nam, est-ce que du coup yi la ñuy gis ma ne wuruma dem non dañuy gis ne daf nga nga màgg dañuy gis ne dictionnaire mhm. màgg na mhm. te bu ñu waxee màgg na yox yaa ko wax sànq nga ne dictionnaire dafa màgg mhm. maam màgg mooy bi ngay bëri fii xale nga woon waane boo xasee ba àgg ndakaar wala cees màgg nga ci màgg bi mooy léegi bëri bi amatul sorxo sorxo lépp loo def bu essayé tey comme li ndem si yàlla sa mooy per Balla Gaye numéro un daf ko waxoon mu ne Balla gay numéro deux amul lu ma koy conseillé ci làmb ndaxte kooku lu mu def ci làmb moo ko tey maam mbër day xam ne sa ménagère sa dutul am lu mu lay conseil xam nga lu lay conseil hmm. mooy que ne tàllalal loxo yi ma ñaanal la foofu ngay toll ak moom ndaxte xam na ne yow tey jii yow mu koy wax maanaam guddali wax la rek wante ji da ko faa fekk loolu moo la boora di wax sooro doguma la yàlla bu la yàlla dog ak léegi man bi ma dalee bëreem ba fat ak léegi musuñ maa conseil hmm? barke Seydunaa Muhammad Ali la ngi nii gaa yaa ngi nii man waxuma tax ay micro bi ma dalee bëreem ba ak léegi musuñ maa conseil parce que man xam naa waaw mais làmb lan moo fa am buñ tëjee cercle bi nga war a jëf maanaam jëflante rek moo fa des waxante dëgg quoi suura. jëflante moo fa des léegi euh, suñu caméraman ñu ngi ñuy wax ne temps bi mu ngi gën di sori léegi nag euh, ñu ñëw ci biir combat bi dëgg mooy que ne ñun demuñu woon stade wante gis nañ ne combat bi am na ñaari sit yu fa am na tamit ñaari maanaam ñaari ñaari su ma ko mën a waxee mooy que ne bu mu nee sit boo bu amee ñaari sit am na ñaari déclenché yu fa xam si am na ci biir combat bi mhm. am na ñeent zongale yoo xam ne am na fa. Mhm. zongale nga ñetti yoon. Mhm. waa ji zongale na benn yoon. Mhm. yow si zongale waa ji nga tasanteeg moom. si ngeen si ngeen ànd rëpp. si première site bi nga bi nga am gis nañ ne yaa ngi jug sax yëkkati sa loxo moom it mu ngi jug yëkkati loxoom. wante loolu lépp ci biir combat bi te waa tamit si image bi ñu a am mooy que ne nekkul ku nga xam ne. Euh, ku ku ku lumana la mhm. maanaam lu mën xew moom moo la sut mhm. te dañuy gis ne faral di wax ne mooy mboot bu déclenché si njool ak à chaque fois bi agusuf suuf moom ben ëpp mhm. benn bi des mooy que kui su même bu dee kuy yi doon nekk yaa doon déclenché kuy yi su accès bi mooy ëpp solo reloosu ndaama bi muy ñaar ñetteel bi tamit reloosu njool bi saa bu ngeen dee jàppante moom bu bi reloosu njool bi su jàppee mooy ëpp fuuf reloosu ndaama bi ndaxte boo gisee ñu si gën bëri yi bu ñuy leen di kene a defarul defarul bi moy bu ñool mi duggal loxom te gis nañ ñet ñett yooyu yëpp rek nga ko ci dominer moy ko nek ci kuy yi mm-hmm. donte ka ne xëy na moom nekkul mbër boo xam la mm-hmm. wante bi mu ba premier site bi am ngeen rep après lan ban ban conseil mo am fofu ak yow bi nga juggé lan nga def sa bop bi dañu gis nga jukku rek ansoné wat kuy wa man dama jappone la mu ji jeexul parce que bëre dor lañ wax quoi dor lañ wax durant toute la combat manam lamb ji li fi am lepp pat def dama ni jaam am na loo mom, mom, mom, moom moom am fum yam digeunte mak boromam jaam du may bopam man lamb ji suma ma may sama bop bima defé lol ba paré damay daan sa way moma jitu ci lamba deug la mu ngi ci écurie bu mak parce que Max Mbargane moo ko toogal sees. Mhm. écurie écurie euh, Lansar Lansar la Max mbargan écurie Lansar ci géew bi fekk ñun ñaar xam nga lu mu wax ciatu guuy gi mu ne wa mu ne ko ki ngay beurel mbeur la nang ko déglu ma deggu ko dégg na ko de. mais problème mooy man daa am lu ma concerné loo xam ne moo nekk ci man di dégager te man loolu dama koy dégager du ma ko téye quoi bu ma ko téye sonal sama bopp. mooy affronter. man bu ñu nee prime dinaa affronter taal ay coups dinaa ñëw man loolu laa xam quoi te bu ma ñëwee ci ñëw bi dama koy teg ci yoon comme combat man ak Boy Faye ñaata minutes cinq minutes mm-hmm. maa déclenché taal ay coups ñëw ba ma ji nu mu jeexee. Mm. loolu mooy sama stratégie bëri Sa Thiès lan lay bëre. Mm. bu arbitre ne prix day taal ay ku ñëw. dem keroog bi mu fi daanoo gars yi tooguñ lu nañu wax ko. Mm-hmm. ah daanee gars yi duñ gis. ah. Mm-hmm. bu ne bu ma daanoon gars yi duñ wax lii. <laughs> dama lay dama laa jox dama laa jox réponse bi. waaw <laughs> ah ci kon boo ko déclaré. bu ma daanoon sóora gars yi duñ wax lii de. <laughs> Ah. mais problème mooy kuy bëre mooy daanoon dama lay décortiquer combat bi arbitre dañuy prix. Mm-hmm. ma seere sama protestant matt ko. raam jëm ci kawam daal koy miime góos góos mu esquivé ma dóor ko droite dalul ma daggaat làng gi mm-hmm. daw seere ko te yëgul ni seere naa ko mm-hmm. daw seere ko jige ko te yëgul seere naa ko miime waat góos góos xam nga góos góos droite bi dama ko dóor sànq mu échoué dama ko dóor góos góos dama ko dama ko coupé nii rek téléphoné parce que wóorul bëgguma koo sànni mu joo ak man góos góos miime pour mu laak kanama mu ubbi ma dóor ko kuumantoom bu dal man xam naa ne dóor naa ko mbër boo ko dóoree da koy jëli mm-hmm. daw takk ko bi ma ko takkee daal koy bi tegal ko seize. Mhm. mu bi fa teg tànk tànk droite am rëcc. Mhm. mu dóor jambe. Mhm. ma dóor jambe ñu jug. ma takk ko daw sentir ko indi ko ci kanam peese ko mooy zongale bi ngay wax. bi ma ko indee ci kanam delloo ko tegaatum seize bi ma ko delloo tegaat daal di déséquilibré. dëgg laa lay wax quoi. bi ma déséquilibré ci action boobu la parce que ñaari ngembam mu ngi sama ñaari loxo mu ngi sama ngemb bi ma déséquilibré mu jàpp sama ngemb daan may zongale. bi ma zongalee fekk maa ngi takk. ñu dem ba ci suuf ma dóor sama loxo sama fii sax daa dagg. Mhm. bi ma dóoree sama loxo jug mu nekk sama suuf ma dugal ko ñaari percule. Mhm. noonu la demee quoi. nga dugal ko ñaari épercule après moom ngeen ngeen. pour man ñu mm-hmm. jeexul parce man lamb tant que attewul rek pour man jeexul quoi. boobu mooy dernier site bi. waaw su nekkoon conseil bu ma lay conseil mm-hmm. ndax li ma la wax ndax yow nee nga wax nga ko sa bopp mooy que ne. Mm-hmm. ji lu fa mënti am boo daanoon lépp du feeñ. mooy que dañ naan bëri na bëri bi daan na maanaam faay du génn boole ko la ku xam lamb dëgg mooy xam ne faay am na man fenn rek laa gisee fay. fenn fenn mooy fi nga xamee ne première site bi am na yéen ñaar. non maanaam suufleel si nga bi ngeen tàqalikoo maanaam suufleel ndaxte yow benn bi am mooy nee naa la waa ji maanaam dafa am opportunité yoo xam ne yëpp même boo xam ne moo la ko ëppale opportunité yi mu la ëppale mooy moom moo la gën a nekk njool muy benn te njool bi mooy ñetti opportunité yi ngay bëgg ci làmb daf la koy xañ mooy xeex bi daf la koy xañ bëre bi daf la koy xañ tey bu ngeen jàppante daf la koy xañ ndaxte tey moom raloosam lépp moo la koy ëppale moy que nak nag amna na soufflé watal xolat beneen yoon bu nga xam ci mom ngay jaar mm-hmm. wa nak bisu defet bu bu ñëwee mm-hmm. lépp loo def da ngay ñak mm-hmm. wa relance bobu ngeen di wax sax relance mbeur mbeur mo koy gis sóora manam yeen relance bi ngeen gis devant l'écran man gisumako ko gën ji gis nga bu ma sutoon benn sut bi yow waa gis nga gis nga ko avant combat bi maanaam avant seen sen jàkkaarloo gis nga ko parce que envoyé nañ ma ay gi nga relance mbeur mbeur mo koy gis amna benn relance bu mbeur di sutee mbeur du relance am yaa may dégg bu waaj li ma booy fay sutee xaaj bi bi moom moom mm-hmm. lool mooy relance man boo ma sutee loolu ci làmb xam naa li may bëreeg yow. Mm-hmm. maanaam relance bi ma sutee keroog. Mm-hmm. du relance su làmb dama ne am na loo xam ne jaam da koo am am loo xam ne yàlla yor ko. man sabab lu laa mënoon entraîné quatre heures de matin laa noonu yeewu mhm. dem ànd ak samay gars yi dem géej mhm. suñ ñëwee première noddu sax day fekk ñu koy door a noddu man naan fonde dem tëdd dix heures ma dem saal mhm. dix sept heures ma dellu saal ma dellu entraînement léegi combat bi jeex na temps bi li ci li ci nañ ne presque jeex na ci wàllu tàggatoo la ñu des wante combat bi bi mu jeexee ah Dissoneur ñàkk da mu ngi ñibbi si diwaanu Mboro keroog su ma jumul mooy nekkoon le 20 février à part à part à février ba tey maanaam bi nga nekk ci yoon bi di ñëw ba tey maanaam Dissoneur fu mu jëm waaw yoon bi bi ma fi jógee di ñëw métti woon na mais après après yoon bi maanaam ci lendemain ba wax dëgg faa la aw ma dara lu ma méttiwaat ci làmb ji parce que damaa xam ne làmb du benn combat du benn tàkkusaan du ñaar yaa may dégg sóora man combat yi ma bëri mboora bari na wala bariwul. bari na trop ñaata ñaata jour lañ ma ci lënk bariwul de. non bariwul. bariwul de. non bariwul. dëggam déet. Mm-hmm. man suma boros jumul mboro sax yaakaar naa benn combat la la ma sa fek bo daanu. Mhm. fi mboro moy moy chatu chatu angora. ta ba nga amateur ba nga amateur revanche da nga dang ko nga koo daan. gis nga ni mako mhm. def. kees pele mi ñaan dama ñak combat boobu gis nga lu mu dama ko daan ñaari chut mhm. kon manam suma dem ba lamb am nu mu ma ñëw. metti na ma bi may ñëw wa yoon bi metti na ci man parce que dama yam ay xalaat. parce que man dafa am ñuma bëgg. am ño xamni dañ may bëgg bëggul bëgguñ ma. Mhm. ñooñu ñëpp dama leen di bàyyi xel. Mhm. yaa may dégg. Mhm. di ko bëre waale di ko entraîner waale di ko tëddaale. kon su ma demee yàlla ñëw dina ma metti quoi. mais tamit damay delloo lépp ci yàlla. xam ne man mbër mu ndaw laa. dangay delloo lépp ci yàlla. wante après bi nga jógee foofu noonu. mooy combat bi bi mu jeexee. ménagères yi. ñu ngi leen di woo pour beneen combat wala. man ci oto lañ ma woo pour jox ma beneen combat. instant bi maanaam Aliou na ngi ne. maanaam sa combat fi ne mu ngi mu mu ngi xaay daal. damay liggéey xool li ma manqué ma defar ko dem fi ma waroon demaat yëpp bañ ni ma baax na ma bëre mm. parce que man làmb laa fi nekkee nekkuma fi di bëri ay suba maire bi su may bëri des fois ma jël combat mu ma sa combat yi dafa tegaloo parce que da ngay nit ñi. Mm. parce que nit ñi ñëw moom moo ko xaw a jaaxal mu ma yow sa combat yi dafa xaw a tegaloo waroo bëri waat parce que yow da ngay sonal nit ñi boo amee combat loolu dëgg la. waaw man xam naa ne damay sonal nit ñi mais am na ñoo xam ne bu ñu wootee gaañu duñ ñëw mm. loolu nag yow eh, kii sóora fii ñoom Pape Malick ñoo fi nekkoon ñoom sóora jiyee ñoom jàkkeen mu géej mm-hmm. est-ce que am na mbër bu fi mus a génne ñetti oto non gën nga bëri ñetti oto lay doon mm-hmm. kon ñun bu ñuy génn oto yooyu dañu topp ba pare ay nit di ma woowee dakaar di ma jiitu stade waa Yoff dañ maa ñaar kaar man leen awma xaalis Yoff bi ma nekk di préparé dañ ne ma mbër kër ñoom élément damaa bëgg nga baal ñu kaar pour booy man leen awma xaalis mm-hmm. loolu loolu sant la mu nekk lu nga xam ne tey lu lu metti la donte que nag dañoo war a di liggéey ci temps te tamit temps bi xëy na li ñu li yor ci question yëpp bu ñu ko tëyee fii nii fi la fanaan mhm. wante damay am benn mot boo xam ne rek dama la koy jox mooy que ne dictionnaire tey bu fekkee ne ci bi mu ci làmb open press bi ba ci combat bi mhm. bi mu làmb laa wax open press bi ba ci combat bi loo xam ne tey war naa la koo laaj te tey da nga kaa téye sa xol war koo génne àdduna dégg ko lan lay doon non sant bi moom di nga sant sant bi moom di nga dafa am lu nga xam ne askan wi daf koy xaar man njottu naa ne mhm. li askan wi doon xaar ci man pour ma bëgg la koo laaj mhm. laaj naa la ko wante yow dafa am loo nga ko bëgg a jëmale ci askan wi wax dëgg fa yàlla ku dee ak sa bàmmeel sóora au moins ci ay regret mhm. man ay kàddu cant laa ci am parce que dañ maa jàppale dañ maa defal loo xam ne mënulu ma ko sama bopp amay dégg parce man booy ndaw dama tey dama am fu ma toog barki alxuraanu karim waa mbuubeen fële ci kaw. Mhm. am benn paa boobu feebar. mais nee na jour lamb ji dafa toog ci télé bi te da doon def ay analyse chaque jour Dakar mhm. mu leen jàppal leen ma Boy Ndiaye ban télé la combat bi dawal te dafa tëdd feebar affaire boobu moo ma jàpp keroog dëju bàyyi la man bi ma ko booy wax. Mhm. benn mag boobam dafa feebar mun leen jàppal leen ma seenu booy njaay ban combat yu bëre ci ban tele lay bëre jàppal leen ma seen bi ngeen génn ngeen bàyyi ma seetaan ko barki alxuraanu karim mu ne lu rëy dama bëre ba pare ay booyu ndaw yoo xam ne seen yaay dafa ma doon wax seen cofeel ci man ma ñëw toog ci saal bi di waxtaan ak Njaga Njaay le a barke axuraanu karim boo boobu indi doomam doomam kottu ma di jooy sóor li ma lay wax dafa garaaw de mhm. nit bëri na fi ba tekki séram koñ bi mu dëkk gaa yi xamuñ ko man mbooro laa wax mbooro entier man man booy ndaw yi ñëpp a ma xam Mhm. te loolu man du sama jambar jagle suñu borom waaw man duma jambar nak nga sant nga sant ñoom ñëpp. ba mhm. sant xalé yu ndaw yoy kum ñëpp na leen ma wax da temps bi. Mhm. timit euh, daf ci am solo. nga sant leen ñom ñëpp. après ñu tagato ba xaaraat benen benen émission. wala benen open press bo xam timit comme lima wax rek ndox du bay yoonam. waaw ma ay sant ma ay sant bu baax sant bi nak ma ngay koy ci dëkk bi waaw ci dëkk bi quoi sant sama yaay ma ngay koy sant bu baax waaw. parce que man xam naa ne lu ci bari loo xam ne man du man quoi mm-hmm. sama liggéeyu ndaay la mm-hmm. maa ngi ñaanal sama papa baay góor a yàlla yërëm ko mm-hmm. maa ngi sant waa dëkk bi boo yi ma àndal ñoom Fallou ñoom Ahmed sama président fans club ñoom Moussa Allen ñooñu nee naa leen du leen sant parce que ñoom appareil la du ma leen sant quoi mais ay père Bàcc géey Baye Cheikh Ndiaye bu nuylu sama turandoo mbay Rassa ak sama sëriñ bi nekk Njar maanaam maa sant ñooñu ñëpp mais gars yi ma jàppale ci wàllu financé comme ñoom Rasta Japon jëndal ma ay bologu tige ñoom Rusum ñoom Dóor Marto Brésil ñoom Mohamed Paris. Mhm. amay dégg mhm. dañoo bari mbay saw mhm. moo ma tuuse loo blouson ñaari 34 34 noir bleu noir jox ma 100000 Njaga Njaay monsieur le maire daf ma jàppale jox ma xaalis bu bari bindal ma ay demande yu dem GCO Taïba SS fépp. may am combat mu ñëw ànd ak man génn loolu dam dafa garaaw ci man dafa garaaw loolu dama dama ci kontaan sant mbindeef sant waa kafe ga ñoom dëkkoo ak waa teg jeexal xalaat perte mafia bi yaa Musaa bi maanaam sant dëkk bi booy ndaw yi taalibe yi maire yi mboota di sant sama benn sama benn tante tàndayaw Touré jël sant bi teg ko ci loxo pour mu jàllaleel ma ko jigéen ñi parce que jigéen ñi man su may bëree sóora li ma lay wax dafa garaaw man 5 heures de matin 6 de matin dañuy taal añ loolu yombul sóora mhm. sóora li ma lay wax dama bëgg nga xalaataat ci pour après bu ñuy defaat émission man damay doon champion dañoo toog man la trois ans ci kanam mhm. da nga koo fàtte man fàttewuma ko mhm. man la 3 ans ci kanam dinaa doon champion su ma deewul loolu lu ma gëm la moo tax man du ñàkk làmb mu may metti ñàkk gu ma bu ma metti xam nga kañ la may metti ñu duma ay duma ba nga xam ne dañ maa duma daan ma jour boobu bu ma ñëwee dinaa metti parce que du ma génnee siggi xool nit ñi mbër lool mbër dina bëre ba daan du siggi du mhm. mbër bëre ba ñàkk siggi mhm. kon man ñàkk gu làmb ju may metti te ndaw laa bu ma gënee màgg gën a ñor gën a xam li sama ginnaaw mhm. boobaa dinaa naqaree jëflantee loolu dinaa naqaree jëflante loolu. Mhm. parce que làmb li ci njëkk rek mooy sañ-sañ ak bëgg-bëgg. Mhm. man sañ naa bëgg naa. Mhm. li des nag lépp cëru borom bi la te cëru borom jaam yéegu fa. borom bi maa ngi koy ñaan mu cërale ma ni mu cëralee ñëpp parce que jaam laa rek. te ñim cëral amul luñ ma ëppale. bari sëñ Fall làmb kuy takk sër ëppoo mu fit. soora waxuma mbooro dama nit sër ku koy takk buñ ñu géwalee ci làmb ëppoo ma fit gisuma ko barke axuraanu karim nee naa la nag làmb dama ko bëgg su ma neexoon dem defe leneen barki Serigne Fallou te la laay wax de su ma neexoon dem defe leneen man maa bëgg làmb di ko def ku ma ci jàppale naa dem ku ma ci jàppalewul dinaa dem waaye mbooro barke ak alxuraanu karim awma seen fay te dinaa fi indi lu nekk ci kàttanu yàlla ci katt na sunu borom. comme nu mu ko waxee léegi nag bala bala ngay bala ngay euh, euh, bala may tàggatoo. dafa am tamit à chaque fois ndax tey tey jii bu ñu ñëwee ba toog fii def li nga xam si moom mooy wàllu émission dafa am ñu ci ñu ci ñu ci jàpp ñu ci jàpp wax naa ko sànq bi may door a démarrer. mooy sunu caméraman yi nga xam si macha allah bañ na boo toogee toogaay bu baaxul sax ñu ne la ni nga toogee baaxul ndax xarañte gi ñu xarañte wante loolu lépp tamit mu ànd ak site bu xam ne lu ma wax rek ni nga waxee sa combat comme dictionnaire teg loxo mu dem tegul loxo mu dem Vital TV dafa nekk site bu nga xam ne teg loxo mu dem ñàkk teg loxo mu dem te yéen it da ngeen ci am kàddu bu nga xam ne àdduna daf leen di déglu te kàddu boobu moom mooy lan ci Vital TV waaw loolu waxoon naa ko yof parce que defoon naa la vidéo ak champion yi. Mhm. man la Soore mu vital ma la yàgg vital Tibis sen collaboration boobu ngeen collaborer maa ñaan saa borom def ci tawfeex. Mhm. parce que site bi ñuy gis comme site Fadam TV Lutte TV. Mhm. boo yooyu noonu yëpp Dakar damay nekk ak ñoom nii ñu doon ay jeunes comme yéen. te ñoo ñooñu ëpp ñu la làmb ëpp ñu booy xarañte caméra bi ñuy def. kon pourquoi pas yéen ngeen mën a gëm ne da ngeen dem ba au sommet. moo tax ma ni jàppante bi ngeen jàppante yàlla ni yàlla musal ci saytaane mm-hmm. te defal leen ndam man site bi Vital TV maa ngi koy gis faneen mm-hmm. fu dul fii te yàlla yàlla mottali waaw yàlla na yàlla mottali comme ni mu ko waxee rek euh, xëy na temps bi euh, moo ñu xaw a tànc wante gënoon na neex ndaxte tamit làmb bu ñu si dee wax suñu ferte lay doon fii ba fajar mën nañ question par question yoo xam ne tey askan wi dañ ko war di xaar pour ñu ñu ñu ñu ñu dugtal ko ki nga xam si moom mooy dictionnaire waan lépp loo gis ci àdduna rek dafay war am lu nga xam ne moom mooy organisation ba kër sax boo organisé wul du dem loolu nag moo tax ñu tënk ko ci wàllu temps pour nag jéema xaar ba beneen yoon incha allahu rabbi li ma waxoon ci bi may départ ak Vital TV donte que ne tey première sortie émission bi mu ngi ni keroog euh, open press bi lañ def noonu tey mooy première sortie boo xam ne def naa ci émission ak ñoom te dañ ci def lu nga xam ne lu war a mat 5 ak 6 door génn nag seeti ji champion yi ndax dafa jot tey ni ma seeti ji woon Ama Baldé ni ma seeti ji woon Balla Gaye ni ma seeti joon sànq bi ñu nekkee ci néeg bi la ñuy déggante ak Malick Thiandoum am na lu la wax am na lu ma wax te am naa lu ma war a dem préparé ji ko ak moom indil ko ki nga xam si mooy waa Mboro wante waa àdduna ndax tamit site bi nekkul mboora képp àdduna la te àdduna lépp lu ñuy lu ñuy lu ñuy xool rek dafa nekk loo xam si ay qualité image yoo xam ne wala ay qualité kaddu yoo xam ne dañ ko war a xaar ci nit kooku noonu te mu nekk mbégte boo xam ne man maa ko sàkku ndax amul ma la làmb comme ni ngeen ko waxee man làmb lépp lu nga xam ne dafay tardeel nit ci làmb rek man jot naa ne man nga koy defal ndaxte làmb dafa nekk lu nga xam ne dafa nekk ci man nekk gi mu nekk ci man nag moom laa bëgg wan waa àdduna bépp bañ xam ne Mansour Dié pare na ak Vital TV lépp lu xam ne dafa réeroon nit ñi ci làmb moom mu génne ko wane ko ba àdduna bépp xam ko di sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant tamit sama caméraman ndax su ma ko waxee ñi nga xam ne gisuñu leen dañ naan waa ñooñu ñan la ndaxte tey ji boo xoolee ku mel ne Saalihu mu ngi ne gis nga ko man rek maay def émission caméraman yi ñëw wër mhm. Saliho ngi nii mhm. euh, ma jaxatee ngi nii mhm. euh, Habib mu ngi ne ñu nekk ñoo xam ne ku si ne fa nga faaj fa nga nekk rek la ngay liggéey macha allah loolu nekkul lu nga xam ne lu yomb la kon yàlla nañu yàlla lafal cet yàlla nañu yàlla bàyyi si li nga xam ne moom lañ bëgg ci li nga xam si moom mooy émission bi bañ naan tey jii nii non dañoo tax dañoo dañoo toog jëxëran devant tout le monde ñu naan ah tey jii kat jine ah, caméraman yi Habib la comme niñ ko àndee woon na tax loolu rek moo am solo mm-hmm. coloré foofu lay nekk di sant ñëpp di gërëm ñëpp waaw maa ngi sant sama benn grand seen ak Bres Volcan mm-hmm. maa leen sant bu baax ak grand Abdou Diop nañ ma mm-hmm. waaw defal nañ ma lu ma mënul loon sama bopp maa leen sant bu baax ak mbalam mbalam jàppale na ma jox na ma xaalis bu bari képp koo xam ne lim moo ko rek nañ jàpp ne dama sama xel moo matul waaye siyaare naa ñëpp di bëgge ñëpp man it foofu laay tëjee sama kàddu mooy que ne maa ngi sant ñëpp di di bëgge ñëpp di kontaante ci ñëpp di leen jox dig daje ba beneen yoon incha allah jërë ngeen jëf